asalaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen plateau Sénégo TV donc tey ñu ngi dalal euh, monsieur Omar Ndoye mu ngi muy responsable APR à Pikine nekk aussi coordonateur de la plateforme des cadres républicains de Pikine monsieur Ndoye ñu ngi lay nuyu. merci Khalil vraiment maay am mbégte kontaan di teew fii seen plateau pour éventuellement ñu wax échanger si li nga xamante ni moom mooy actualité politique ak euh, li xew si réew mi. monsieur Ndoye euh, avant ñu dugg dans le vif du sujet un peu bëgg naa ñëw dugg ci actualité bi récemment concernant un peu le procès Mame Mbaye Niang Ousmane mm-hmm. donc naka nga jàngatee issue bi issue du issue procès bi donc euh, condamnation à deux mois avec sursis euh, amende deux cent millions donc ñu bëri aussi ñu ngi koy jàppee ni c'est c'est une peine un peu légère. par rapport ak ñi nga ko doon xaaree donc ban analyse nga ci mën a def. waaw Khalil procès bi mën nañu ko jàngatee ci ñaari ñaari bi njëkk bi en fait liñ naan tout ça pour ça yow da ngaa doomu jaamu da nga tuumaal gor gor bi ne la tey kaay indi say tuuma yow si tuuma boobu noonu tey fexe nga tey def fi benn tintamarre mobiliser fi ay nit créer fi ay manifestation reylu fi ay doomu jaamur ba finalement dernier jour procès bi sax yow demuloo bañ lay condamné kon donc maanaam tey yow li nga doon wax newul dëgg donc tey li ko Mame Mbaye Niang doon wax depuis le début le ministre Mame Mbaye Niang donc ça se kii amul preuve amul rapport te lu mu waxul dëgg beneen jàngat bi mu si am mooy. Euh, Ousmane Sonko soo ko xoolee politique bi yëpp depuis bi mu démarré ba léegi ba bañ koy génnee ci administration sénégalaise bi sax sa politique dépende sur la dénonciation maanaam tey jóg di dénoncer ay li xew ci réew mi anti système euh, les 14 les 94 milliards euh, wax na fi lu bari même ba dem na sax ba assemblée nationale bi mu fa nekkee sax moo ngi doon wax problème mu ay impôts yi xam tey député yi duñ ko fay. ñu les parlementaires. dem na ba tey wax sax biir assemblée nationale que le président assemblée nationale da doon jox. tous les députés 10 millions yoo xam te yëpp tey kenn topp ko ci dara soo xoolee sa politique de dénonciation tey pour man tout s'effondre maanaam tey lépp lu mu doon wax bi mu dalee di politique ba tey tey Sénégal yi lan si jàng muy nekk nit nga xam nekkul nekkul koo xam day wax dëgg day dégg dara xëy taal rajo yi ak télé di wax te su waxee tey soo ko andi say preuve du ko andi te bi ci gën a flagrant tey mooy les 94 milliards parce que boobu tey ñëpp xam la suite intérêt moom bi mu ci amoon amoon na ko ci il paraît amoon na si ay commission mu dem ba ci biir ses intérêts sont menacés mu génn politiser dossier bi wax si loo xam ne amu ci donc man lu ma siy retenir mooy c'est un boo xam ni tey il fait de la manipulation politique en fait lépp lu muy wax rek ay rumeur lay génnee ay dénonciation te soo ko andilee soo ko defalee tey benn plainte ñu ne non c'est c'est un politique soo defee léeg ñu ne noonu dañu kaa bëgg liquider pour mais à part élection 2024 mais Ousmane Sonko c'est un citoyen sénégalais a dem ko jox comme citation wala ñu convoqué ko mais saa yi soo ko convoqué rek dafay créer benn situation xam te day mel ni comme si tey c'est sa personne qui est en danger la preuve bi ñu koy njëkk nguufaan di ko yóbbu euh, këram mhm. li mu wax dégg ngeen ko. mais est-ce que aussi. fois bi ñu koy yóbbu nee dañ ko bëggoon assassiné mu créé fi benn tintement alors que tey ce sont militants son partisan même moo dem si jël vinaigre sotti ko ko. donc am na yoo xam ne pour man en fait tout le temps il lépp lu muy def rek da koy politiser. mais est-ce que aussi la façon de s'y prendre aussi comme force de ni ñu ko extirper keroog si otoom euh, la dernière fois aussi c'était presque la même chose euh, est-ce que loolu aussi euh, du andi frustration aussi. non dama ne la gis nga euh, affaire assassinat yooyu ñuy wax sax. gis nga l'État a tout intérêt l'État amul intérêt tey Ousmane Sonko ñu koy rey parce que loolu dafay salir suñu démocratie. Mm-hmm. dañu dëgg. Mm-hmm. soo demee en tant que yow kilifa nga taxaw naan dañ ma bëggoon rey. apporte les preuves lan mooy sa preuve dañ maa sotti benn liquide liquide bi jox ko tey ñu war a def enquête ñu yóbbu ko mais yow waroo tey jël avantage de tes propres euh, initiative yóbbu ko ne da koy analyser donc pour war na ne tey assa tentative d'assassinat boobu ñuy wax sax pour man c'est de c'est du pur mensonge ay kàcc la ay sos la. parce que loolu dafa bëgg tey victimiser auprès des sénégalais parce que njëkk na tey ñu ne ko jaaral ni mu ne du jaar la preuve lu gën a mm-hmm. di dawal nekk ci mais daje ay policiers ñu la bul jaar fii jaar na li doo fa jaar mais citoyen la bu fekkente ñoom jàpp nañ yoon bi moo moo gën a nekk yoon bu gën a balisé bu am gën a ëpp sécurité mais pourquoi nga fay bañ a jaar di créer tintamarre bay créer ay situation de violence dans pays ñu yàq alalu nit ñi mais ñooñu tey dañoo perte ñu ñàkk seen bakkan barki Demba Ndiaye ñaar ñooñu xaw ma ñett ñooñu yan leen yàlla yërëm mais ñooñu tamit dañoo ñàkk parce que tappale na tey ba am génne benn certificat médical am pour bañ a dem le dama ne yooyu yëpp soo xoolee seen stratégie la woon rek pour politiser un dossier pour éventuellement bañ a répondre la justice alors que Sonko c'est un citoyen sénégalais comme tout le monde man li mu siy jàngat li gën a fort au plus profond de moi dama ko am conviction boobu noonu mooy Sonko nekkul nit kuy wax dëgg tàmm na di tuumaal ay gor te su leen tuumaalee du di les preuves donc loolu la ñuy jàng si sa politique ñu ngi naan projet projet projet mais lan mooy seen projet le projet c'est c'est pur c'est de la pure manipulation dans ce pays manipulation euh, sos lañ fi nekkee donc seen projet boobu ñuy wax pour man ñemewuñu sax wax ni lii mooy seen programme te soo xoolee sama gis-gis su ñu demee tey di di tey comparer seen bopp ak le président Macky Sall daanu parce que le président Macky Sall son e ak PAP 2A ajusté bi ñu fi teg te ñëpp nga gis les réalisation waxuñu nag lépp yemb na mais dans chaque secteur secteur boo dem. di nga gis ne tey son excellence président Macky Sall fait beaucoup d' efforts si santé bi si éducation bi si si si si si si économie bi donc ñu bëree ngi day yëpp ngi dox en terme d' infrastructure Sénégal tey ku ko xool xam ne tey bëri dëkk yu bëri dans la sous région dañoo ñee mais ñeewteel boobu noonu tey ñun war ñu ko yàq si lan di créer ay situation de panique yoo xam te amu fi sax en réalité. par rapport ak situation de panique boobu aussi gis nañ fi euh, le cas de Juan euh, un des avocats de Sonko nga ko euh, génneewaatee dëkk bi loolu aussi est rafet na selon vous. non mais un un un pays démocratique comme Sénégal. un ressortissant mm-hmm. yow balaa ngay ñëw Sénégal ngay tuité di posté. Mm-hmm. di attaquer sa président sans en fait man sénégalais dama xamul nit ñi parfois ñoom ils sont dans quel camp. Mm-hmm. tey un sénégalais su nekkoon fii nii tey balaa mi dem France xëy di saaga Macron wala di ko wax lu ko neex. est-ce que kooku sur France dina ko may visa mu dugg fa. non dañu wax dëgg. dañu wax logique pour logique. mënoo tey yow toog fay ne nga nekk tey un avocat yow Macky Sall amul yow benn problème nga koy traité de tyran di appel à l'insurrection si si réew jàmbur foo xam ne yow dëkkuloo fa na ànd askan wi yëpp génn mais loolu lu soyoon de quoi je me mêle en fait sénégalais pour man parfois ñu analyser waxu nit ki danger danger bu mu am ak porte bi mu am kooku il n'est la bienvenue chez ki xam te yéenewuñu jàmm moo ngi naan na Sénégal yëpp génn taal réew mi te newul taaloo sa réew te sa réew mi sax ngi tàkk donc pour man ah pour man affaire boobu question de respect la question de de de de souverainité loolu état day jël ay responsabilités si une personne menace notre pays wala appel à du wax yoo xam te ni teggi na suñu réew ñun suñu hospitalité duñu la ko jox. donc mais par rapport ak même euh, verdict toujours procès bi pour euh, bañ ci yàgg un peu donc est ce que jàppoo ni aussi c' est un verdict comme ni ko avocat Mame Mbaye bi waxee. Hmm. donc euh, pour apaiser un peu les pour bañ a andiwaat manifestation yooyu. xam nga décision de justice kenn du ko commandé. Hmm. juge bi su xamee ba décider rek décider na dama jàpp ne tey justice dafa indépendant tey ñoo am nañ gàcce. parce que ñu ngi naan dañoo politiser la justice dañ kaa instrumentaliser dañ kaa nangam ak nangam ak nangam. lu nekk lu nekk lu nekk ñu ngi interjeté appel am nañ si droit parce que yoon moo leen ko may. Mhm. mais je veux dire en fait tey avant tax ñuy def euh, euh, décision di génn. Mhm. lu nekk te seen taxe nañ ko de justice. Mhm. dem na ba wax tey les juges ay lâche lañ. dem na ba cité ay tur ñoo xam te ay kilifa lañ nekk am ay njaboot am doom am lépp mu leen di muy gàkkal seen der. seen doom di ko dégg te seen doom yi tey ñoo ngi si réew mi. non moom maa lay expliquer en fait donc nit ki pour man war nga am war ma si ay nit parce que li ngay bañal sa bopp bu ko bu bu ko def ñeneen ñi te yow tey fii nga dem tey juge bi recevoir la di la poser ay question tey si benn dossier ba la conseil muy l'affaire Adji ma la tontu tey tey yow loolu ça te concerne directement tu dois répondre yow tey en privé ñu lay poser des questions yoo xam te la ndax lii yaa ko def wala defloo ko nga ne du yow yaa ngi jël ay doomu jaambur ay gor toog si télé ak rajo di wax di gàkkal seen der si loo am tegloo si dara donc c'est ça moo war a say Sénégal ñu sommes des un pays de valeur am na suñu maam yi ak suñu euh, bàyyi lu ñu fi bàyyil si ay valeur te dañ ko war a jàngal inculquer suñuy doom ak suñu sët loolu tey waru fee jóge te je vois que ni tey le Pastef dafa nekk un boo xam tey dafay c'est un parti de contre-valeur c'est un boo xam tey li muy jàng askan bi si ay ay ay ay ay xeetu jëf nekk loo xam tey loolu suñ maam yi bàyyi woon fii nii donc moo képp ku nekk sénégalais képp ku nekk sénégalais laax xoolaat tey parcours Pastef xool tey jaar-jaar ak lu ñu fi wax li yëpp Pastef nekkul un boo xam tey sénégalais sax war nañu ko bàyyi xel parce que yàq nañ xale yàq nañ yenn xale yi sax mais xale yi tey ñu bëri dellu si waat ñu bëri dem ne ba comprendre xam ne sa gaala c'est un menteur lépp lu muy wax waxu waxu dëgg parce que fekkoon tey nekk nekkul dëgg moom tey peut-être amul possibilité def appel mais c'est c'est stratégie la parce que tey su fekkoon ñëw na si procès ba toog toog fa. Mhm. am na possibilité de def appel. Mhm. mais xam na ne su ñëwee toog du def appel. mais ñoom kon contesté wuñ sax euh, kii ko contesté parce que amuñu preuve donc mooy li ma doon wax sànq ba tey rek man damaa jàpp tey Sonko bi mu dal créé partem commencé def dénonciation. ah lépp ba tey. c'est mhm. lépp de la ni la. yàq askan yàq xelu ni dellu nit ñi la. te amul benn preuve donc son parti. fondement bi c'est des mensonges et de la manipulation. ok monsieur Ndoye la question du troisième mandat donc euh, revient toujours. donc mm. deuxième quinquennat troisième mandat gars yi bon les avis sont peu partagés donc euh, yow est-ce que déjà yow euh, bokk nga si ñuy défendre candidature Macky Sall en 2024. Euh, ñun déjà nous sommes dans un parti discipliné et dans une coalition maintenant ku ne am nga sañ-sañ am sa bëgg-bëgg am sa yéene. Mm-hmm. ñun suñu yéene tey mooy le son excellence président Macky Sall eggali yéeneem si biir Sénégal. te su ko yoon mayee da koy def te je pense que ne tey comme lañ ko ñu bëri waxee le débat juridique ne se pose plus le débat juridique amatul lu ñuy wax kay mooy débat politique mooy ñu fi nekk naan du ko nekk ak dina ko nekk mais ñun. mais débat juridique est-ce que mën nga ñu gën a leeral. non débat juridique bi li ñu si mën a leeral rek mooy je pense que ni tey en 2016 avant même la réforme. Mhm. constitutionnelle. Mhm. mooy référendum bi. Mhm. bindoon na pour demander avis. par rapport ak son mandat de sept bi mu demandé avis ñu ne ko sa mandat bi mënoo ko wàññi parce que il voulait faire il voulait respecter un de ses engagements. Mm-hmm. ñu ne ko mënoo ko wàññi. voilà pour 5 ans ñun mënul nekk impossible. bi ñu demee si réforme bi aussi tamit ñu bëgg wàññi mandat bi ñu wàññi ko. Mm-hmm. aussi laaj nañ avis. Mm-hmm. ñu ne ko sa mandat 7 ans bi est hors de portée des réformes constitutionnelles. donc loolu je pense que leen si bopp ñëpp. te je pense que tey même les ces leaders a défendre wax. dégg nañ fi Sonko mu wax ko dégg nañ Barthélémy Dias mu wax ko même des éminents juristes ñoo xam te vraiment xam nañ sax ànd ñoo pouvoir ànd ñoo nguur tey taxaw nañ tey ne la candidature et bel et bien possible. bu fekkee ni moom bëgg na ko. mais supposons juridiquement tey ji par exemple mu possible donc euh, moralement est-ce que ak par rapport ak promesse yi mu defoon aussi. non en fait promesse xam nga ni tey mën nga am sa yéene. Mhm. ne man fi damaa bëgg def nangam yam foofu. Mhm. mais ña nga tey moom yow moomoo sa bopp. te fekkee ñun les responsables de l'APR de la coalition Bokk Yaakaar de grande majorité présidentielle ñoom ñoo ne président ñu kat dañoo bëgg nga eggali dañoo bëgg tey ñu ànd li continuer liggéey réew mi mais moom mënuñoo bañ a loolu parce que nit aussi euh, nga am sa gis-gis mën nga am sa li nga bëgg mais tamit bul fàtte sa ginnaaw te am na ñu nekk ak yow di liggéey te ñu ñu ànd ak moom ça fait plus de dix ans ànd ak moom di liggéey bés bu yàlla dogalee te ñu ne ko ah président d'accord waxoon nga nangam mais ñun dañoo bëgg tey gungewaat la nga continuer ñu nekk ak dynamique bi ñu nekk il faut nga yegali loolu tey mënuñu koo baña te je pense que tey tous les responsables euh, euh, départements yi coordination yi ñëpp gi def seen activité d'animation politique ne président ñoo ngi lay ñaan pour que nga ñëw def sa beneen mandat. mais moom est-ce que dafa mel ni pare na de parce que interview bu mujjee joxe en mais c'est juste en fait dafay leeral dafa leeral rek war na ne juridiquement c'est pas c'est pas interdit. Mmh. maintenant nag loolu décision bi la mais ñun suñu yéenee. ak suñu bëgg-bëgg. mooy mu nekk suñu candidat en 2024. ok donc même par rapport ak yéen bëgg bëgg-bëgg bi aussi euh, bëri génn manifester contre. non loolu c'est loolu loolu. loolu syndrome Abdoulaye Wade da kii loolu du fi am. xam nga pourquoi parce que tey euh, ñoom seen procès bi doon nañu tester lu mel noonu. la manifestation à la mobilisation le 29 le 28 kenn gisuñu kenn. le 3 bi sax dem di sosaat encore naan xaw ma les états majors de l'armée lañ consulter ainsi de suite en fait dañuy wax des choses yoo dafa grave comment des politiques. la ñuy jógee di intervenir di wax communiquer nan des états généraux de l'armée la ñu consulter ñoom ñoo ñu conseiller pour que ñun ñu bañ a def ñu manifestation le trois avril ba ñooñu génn di leen démentir en plus pour wane ne ñii c'est une entreprise de mensonge nga si mot bi sos la ñuy def ak manipulation te loolu moo gën a dangereux pour man nguur kenn ko jëlee si sos ak si manipulation da ngay am sa projet de société nga présenter ko askan bi soo gisee état di def loo xam ne yow jàpp nga ne lii programme bi kat nga ne programme bi ko jàpp naa ne baaxul li ma jàpp moo baax lii moo baax wala nii lañ ko war a defee donc c'est ça une une opposition de contribution opposition da ngay andi li xam tey moom moo gën si askan bi mosoo leen dégg ñu wootee manifestation contre la cherté de la vie wala contre le contre le euh, la euh, le front social peut-être mais seen activité politique rassemblement yépp c'est politique dañ maa bëgg tëj dañ maa bëgg tere nekk candidat nañ def nañ mobiliser pour. wala question troisième mandat wala question troisième mandat. Mm-hmm. mais sénégalais yi dem nañ ba comprendre ni xam ne ñii duñu dara tekkiwuñu dara la preuve 29 28 bi 29 euh, 30 bi ñu doon woote. ban Sénégalais nga ñu génn jàppoon c'est un combat légitime aussi parce que par vu ak procédure yi gars yi la xam nga tey Sénégalais dem nañ ba comprendre 29 20 29 bi passé mm-hmm. wootewuñu quelques jeunes nga gis ñu génn rek def ni ay kii daw même pas une heure temps ñu dem duggaat seen biir kenn gisu leen ñi ñoo dem ba sonn si ñoom xam nañ ñii lu ñuy xeex seen yëfu bopp lañuy xeex xeex xeexluñ askan bi askan bi tal nañ yeneen lu dul loolu te ñoo ngi gis seen bopp si le président Macky Sall am na yu bëri yu mu def yoo xam te vraiment am na impact waxuñu nag mat na mat na dara mat am dara mënul mat mais def nañ effort yu bëri si wàllum social si wàllum cherté de la vie bi tey tey baisse des loyers mais askan bi sentiruñ ko ah yokkuñu fi salaire fonctionnaire yi ak tous les euh, yeneen agents de l' état yi ko enseignants ñëpp donc pour ma état ngi yu bëri. Eifax yu ñuy wax yu ñuy créé ay TER beeg BRT beeg ak Eifax yu ñuy def ay autopont yooyu noonu à Dakar ak un peu partout ak les routes mais état a fait beaucoup d'efforts li ñu fi def ci 10 ans yi actuellement 11 ans yi euh, mag Ablaye Wade sax def ko te je pense que tey ñun on a l'obligation ah le président mu eggale say son son ses ses ses projets mais ñi ma fi gis ñii pare ñu sax pour yor nguur ñu ko leen woon ci gouvernement sax. duñ liggéey. parce que xamuñu liggéey. à qui la faute est-ce que jàpp leen ni waruñu leen imputer faute bi yéen waa nguur gi bon ñenn ñi wër Macky par rapport ak même à la communication donc euh, soo xoolee ñoom euh, seen communication li si ëpp dal Sonko la mais euh, au lieu de comme bien bien communiquer un peu par rapport aux réalisations euh, c'est comme si que dañuy gën a tomber ci piège opposition que que di xool aussi li. Macky def si dëkk bi actuellement. waaw loolu aussi peut-être mën na nekk problème mais euh, problème communication mën na suñu parti parce que des fois dañuy entraîner seen communication pour man amul benn futilité. amul benn njariñ suñu en fait. parce que ki nekk di sos euh, di manipuler yow tout le temps ngay essayer de trouver di justifier wu si yàggee da koy topp si jeu boo xam te si son jeu favori. en fait c'est leur jeu favori ñoom ils sont à dans ça manipulation mensonge alors que ñu tey askan bi ñoo ñu fal. on doit se concentrer sur les réalisations du président li nga xam ne moom la tey baisse des lois yi tey dafa impacter considérablement kii la la la vie quotidienne des sénégalais. ku nekk ñu bëri yëg nañ ko. mais est-ce que dégg ko alors que tey impact xam tey minimum 15000 francs parfois ça dépend 15000 ba 30000 50000. loolu aidé sa ration alimentaire ak leneen leneen. donc mais dañoo war a communiquer si moom la acte yi nga xam ne mooy acte. ah yow moom la président Macky Sall def en termes de réalisation en termes de euh, de, de sociaux. mais on dirait que ñenn ñi aussi. loolu aussi peut-être mën na nekk mais li mu si wax daal mooy man li may gën a déplorer sax si suñ communication. Mhm. moo dafa que parfois ñuy bàyyi des influenceurs. Mhm. ay mmh. ñoo xam te ils ne sont même pas militants du parti. Mmh. et même je dirais même fekkee maintenant ils sont transhumants ñëw na suñu parti mais ils ne doivent pas être au bout des boucliers man mën ma comprendre des tiktokers des influenceurs xamuñu suñu réalisation parti xamuñu suñu vécu parti xamuñu suñu suñu programme parti et même parfois leurs images ça pose problème ñu nekk di défendre le parti loolu ça pose un problème beneen bi aussi tamit si wàllum communication man je vois mal un un je vois mal un maître Amadou Sall ñuy porte suñu communication parti. je vois mal en fait c'est des gens qu'on a reçus dans notre parti. dañ naan gan di yeewu béy il venait de l'opposition mhm. te aussi tamit waxu démb yi seen waxu démb yi moo ngi fi mhm. sénégalais aussi tamit dañuy dañuy dañuy dañuy déglu ñuy baax xam na ne li fi wax démb ak li fi wax tey mhm. seen seen seen communication mënul porter mënul dugg sénégalais yi qu'on se la vérité un masali qui parle di def dina bon c'est droit le plus absolu am na tey sañ man peut-être démb dafa juumoon tey gindeeku na ñëw ànd ak ñun mais pour man tey suñu parti ñun ñoo war a jël suñu parti en main nous mais est-ce que yéen su ngeen jëlul seen parti amee yéen en tant que membre APR aussi ñu ëpp ñi les transhumants ñëw gën leen fës aussi wax boo xam ñoom si loolu ñoom aussi seen jeu favori lañ nekk. Mhm. je mhm. man personnellement je lance samit cet appel. Mhm. pour que vraiment qu'on qu'on revienne à nos fondamentaux dans notre parti. mun ñu continuer di bàyyi tey des transhumants qui soient au devant si suñ communication parti. ça fait mal. pour pour deux raisons parce que man ngeen gëm naa seen communication mënul porté amul benn porté parce que Sénégalais sa gëmatuñu leen c'est un problème. beneen chose aussi tamit les influenceurs on parle d'influenceurs même si c'est c'est les c'est les nouvelles technologies et de suite mais am na yoo xam ne pour man y des limites dans un parti. mais qu'est-ce que qu'est-ce que lan ngay proposer exactement non mais que le parti s'organise en fait davantage. Okay. dans sa communication globalement. Mhm. muy mm -hmm. communication classique comme communication lu sommes un parti qu'on s'organise davantage mhm. de sorte que tey communication bi tey dañ xam ne tey lii mooy ligne de communication bi mhm. mais mënuñu ne am benn communication bu dispersée ñiy wax jaar nii ñiy wax jaar nii ñiy wax jaar na mhm. pose un problème ku neex génn wax loola neex alors que tey ñu defee focus si li xam tey moom la président Macky Sall di def amal njëriñ askan bi pour man loolu rek leen communication ñu bañ a topp opposition bi si li nga xam tey moom lañ nekk muy seen jeu favori muy le mensonge et la manipulation. ok man je les considère comme entreprise de mensonge et de manipulation. ok Oumar Ndoye euh, responsable APR euh, à Pékin coordonnateur de la plateforme des cadres républicains de Pékin euh, de Pékin donc euh, bi comment ça se passe comment naka la comporté waaw comme yeneen département yi rek je sais que ni département de Pékin c'est un département parce que on parle la banlieue banlieue la ñuy wax. Mm-hmm. ku wax banlieue tey wax euh, l'exode rural. Mm-hmm. ku wax banlieue tey wax euh, voilà les difficultés de la vie mhm. donc banlieue fa am ay yoo xam tey am na yeneen zones yi amuñu ko mhm. donc dañu naan sax banlieue moom mooy le Sénégal en miniature. Mhm. Euh, si wàllum politique jóge na si élection locale xaw a tarxiis élection législative ñu daanu loolu aussi dafa jàngat bu rëy bu ñu si war a def jàngat bi mooy euh, département Pikine mosuñu ko perte législative yi dañ ko mujj perte locale yi ñu tarxiis ñu war a xoolaat suñu taxawaay si politique. xool na tey ñun am na benn moment que ñoo ngi doon commencé di yandoor ba dem ba xëm sax donc man li ma jàpp tey suñu département de Pikine euh, manifeste euh, animation politique bi des na liggéey bi des na dañooy bàyyi objectif yi nekk si ay détails quand je parle des objectifs mooy parti bi tey force am moo nekkoon massification ak animation maintenant la plupart des responsables ils travaillent plus sur des visibilités sur la visibilité ils travaillent plus sur des extrapolins ainsi de suite même si c'est d'accord am pour man ñu bañ nax président c'est-à-dire gëmloo président ne yaa ngi liggéey si terrain bi yow yaa téye nangam yaay def nangam ak nangam fekk loolu c'est saupoudrage la yaakaar naa tey réveil bi sera brutal moom je un appel à tous les responsables vraiment ñu ressaisir xam ne tey pouvoir bi tey suñu loxo la nekk te Pikine am na un grand rôle bu muy joué tey sur l'échec sur le poids de sur le poids électoral au niveau national donc nañ continuer liggéey bi parce que la jeunesse euh, tey am nañ doole si département war nañoo gën a travailler si inscription yi war nañu gën tamit nit ñi am benn proximité sociale am benn proximité aussi. bu bañ ne benn proximité de façade maanaam tey bàyyi ba soxla nit ñi rek ñëw jege leen. Mhm. parce que fekkee noonu la ñuy politiquer ëllëg aussi sénégalais yi. leen nax mën ngaa jàpp tey toog ba mu neex nga ñëw. Mhm. soo ñëwee dañuy maslaa ak yow parce que Sénégal maslaa moo fi am. Mhm. mais bis bu sanction jotee bis bu ñuy dem bañ gàcc bi. proximité sociale boobu noonu tey dañ ko war a gën a taxawal bañ a bàyyi politique politique de fiction bu ñuy def. fiction mooy créer sa benn mobilisation taxaw show wax alors que ñu fa andi ñëpp. 50 xamuñu la. ça pose un problème pour man tey responsable politique da war a ancrage social da war a jegees askan waxuñu nga xam ñëpp nag. mais fexeel am benn proximité nit ñi dañuy lay ñemee di la jege. mais yow tuy inaccessible sa téléphone kenn du jot euh, balaa ñu lay dégg nga ne damaa bëgg def manifestation politique. wala maa war a def nangam ak nangam. loolu pour ma sa poudrage la. dem jël fay ay médias ñu génne loog si euh, si si si euh, presse bi. ku jàpp yaa ngi liggéey fekk sa poudrage liggéeyoo. loolu tey moo ñu dal si élection législative yi moo ñu dal si élection locale yi te suñu continuer moom mooy continuer du ñu dal. nañ bàyyi tey suñu égo travailler pour le parti parce que dañoo nekk si moment boo xam tey ku nekk war ngaa fàtte sa bopp liggéeyal parti bi te je pense que le président Macky Sall daf ko mérité. parce qu'il a bokk fait pour les Sénégalais il a beaucoup fait pour le Sénégal tey ñun président Macky Sall référence la tey au niveau international yeneen dëkk yi sax ñoo ñu koy àbb ne soo leen paree ngeen abal ñu ko tellement il a bien il a tellement fait gis nañ tey vraiment moo ngi liggéey Sénégal bu Sénégal je pense d'ici cinq ans dix ans non dina benn benn benn benn euh, nu koy tuddee ti benn changement bu extraordinaire mm-hmm. en terme d'infraction en terme de d'image mm-hmm. te loolu c'est important si dëkk te Sénégal yàlla def na am na stabilité mm-hmm. politique am na stabilité institutionnelle fi amul coup yàlla dima nañ ci loolu amul am na stabilité politique ak institutionnelle ñii di wax nag nga ne tout le temps ñoom dañoo bëgg Sénégal tàkk il faut créer le chaos mais ndig dëkk mënoo ko mënoo ko mënoo ko yoree si si si si si euh, si fitna. Hmm. donc li ma jàpp tey mooy ñoom nañ am raison garder. qui fait de la politique comme ni ko doon defee bu njëkk ba. Hmm. ba yàlla jox la nguur ñu xam ne jox na la ko su la ko joxul tamit nga continuer liggéey. Hmm. mais ko defee si manipulation. ak si ay mensonge dem nañ tey ba Sonko dafa dem ba wàllu feebar bi sax ñu mu nekkal waaye Yewwi Askan bi parce que su ma demee tey bay gis seen communiqué ñoom avec les grands responsables yu mu siy gis ñenn ñi bokk xam naa tey c'était c'était des hommes d'État mhm. mais léegi da leen a ah, ñu nekk ay membres actionnaires mhm. de l'entreprise de mensonge et de manipulation. ok euh, ñu ngi si jeexantalu émission bi monsieur Ndoye ah, ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw xanaa di la remercier encore une fois de plus euh, di wax ni vraiment am naa mbégte teew fii euh, Sénégal. Euh, di aussi sant di nuyu di remercier aussi suñu internautes yëpp seen internautes yi ñuy seetaan yëpp ak seen kii bi. di fa vraiment kontaan nañ mais di gën a waxat ak sénégalais surtout ndaw ñi ne avenir Sénégal mu ngi seen loxo à deux titres. premier titre bi moom mooy tey la restauration des valeurs c'est important dëkk mun ñu ko defar sans éducation sans valeur loo defar defar si lu baax fekk fekkee éducation amu fa valeur amu fa dara lu baax la preuve tey xool yenn jeunes yu yi. bi si bi ñuy dem di manifester ñuy dem fekk les travaux du TER du BRT di ko di ko toj. alors que li ñu lay defal li ñu def foofu yow pour yow la. pour war leen te en fait niveau bu ñu yóbbu nit ñi dem leen toj dem leen yàq mais suñ tojee yëpp yàqu après yow soo ñee looy def da ngay defaraat loolu. jaral alal askan di ko defaraat donc amul benn sens. donc nañ delluwaat si suñu citoyenneté nañ delluwaat si suñu valeur ñu xam ne Sénégal ñu ñun ñoo koy defar kenn du ko defar. waaw di leen sant di gërëm euh, di leen yoon incha allah. ñu ngi lay jaajëfal merci jërëjëf.